Abonnez-vous sur Hamalma TV ngir jëmmal kàddu mag ñi. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziaraat bu baax di leen laat jàmm te di ko sàkk si yéen bu baax a baax a baax di leen dalalaat jàmm bu baax a baax seen seen bi di Hamalma TV di leen wax ngeen abonné bu baax ci seen bi tey amee vidéo yi di ko partagé. di len wax ni ñu ngi wax ci seen heure de pd di waxtu julli di 30 décembre 2022 au 5 janvier 2023 ñi ngi salatu 6h21 minutes suba ci ñu ngi julli 6h36 minutes ci tisbar ñu ngi julli 14h15 minutes takusan ñu ngi julli 16h45 timis ñu ngi julli 18h58 geewe ñu ngi julli 19h58 di wax yalla nangu ñu suñu jaamu mu neew ak bu beuree lépp lu nga ko jaamu yàlla ñu ko nangul bi jaayi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam di leen wax na ngeen abonné bu baax baax baax ci seen bi di Xabarma TV nga xam ne ma ngi ñëw topp ci Facebook eh, Instagram YouTube ak TikTok yëpp di ñaanal abonné yi eh, at mu bees bi nga xam ne ñu ngi koy waaj a dugg di leen ñaanal jàmm ak sutura xéewal di saawan baawan di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.